di bëggee suma gars yi siyaar nañ leen bëgg nañ leen bokk internet yi di leen wax ne ñu ngi fii Ndianda tey dimanche 20 décembre 2020 ndeysaan fara bu Ndianda moo woote tegal mbër yi nag non adu yow waaw waaw combat bi revanche la ndeysaan diggante monument bu Ndianda ak Fallou Las Palmas bu Joal ñoo bëre final barke de moo Ndiaye ca Zawal Fallou daan ko ñu dajewaat fii ci poids yi. Fallou Las Palmas monument Fallou mooy borom ngemb lu weex li Fallou jël na ko monument bañ na combat bi du yomb monument war na ko daan na ko monument daan na Fallou. première demi-finale ci poids léger bi diggante monument bu Ndianda moo nekk à domicile moo ñu woon gannaaw ak mbay seen bàyyeekoo ba daga daawut ginnaaw Kaolack ndeysaan monument bu Ndianda mbay seen buñ nekkee Ndianda ndeysaan xel nijaay sama tonton ñoom yaalu ñoom buure bëgg bu nekkee Ndianda xel day dem ci kër Bura Jogo bin Bura Jogo yi yàlla nàkkee dem ba di bëggee ñoom Assane waaw mais monument jël na ko na ko ndambu monument war na ko ndambu monument bu Ndianda war na ko ndambu waaw waaw premier tirage ci yi arbitre bi diggante Papa Gueye bu Joal ak fils de Patlin Papa Gueye moom lañ jàkkaarloo wala moo féete ndeyjoor fils de Patlin mooy borom ngëm bu bu la kalaar bi fils de Patlin na ko jël na njool bu Joal mooy bëre ak lang binta bu Fimela njool ang koy waaxu njool bu Joal lang binta bu Fimela njool caxabal na ko jël am na wala fara bu njanda champion bi mooy arbitre njool jëlaat na ko forcé ko arbitre nee na njool Papa Niakh mooy bëre Papa Niakh yenu na ko Papa Niakh daan na ko Papa Niakh bu sowal moo daan. waaw arbitre sifflé na ba tey ci poids yi diggante maxalaay bu sowal moo féete ndeyjoor ak benn booy booy bi nag jotuma xam ni mu maxalaay mooy ponkal bi. moo féete suñu ndeyjoor maxa jël na ko maxa jël na ko na maxa daan na ko tegal 16 waaw ci deuxième tour yi arbitre bi sifflé na diggante Papa Gueye ak mbalkamak bu Sali Papa Gueye moo féete ndeyjoor mbalkamak mo fété chamoñ moy borom gemblu rose li wala lu orange li Papa Gueye moy borom gemblu lu li Papa Gueye mbalkamak arbitre bi sifflé war na fi benen combat sok diggante njool bu zoal ak Mamadou sen bu zoal ñaari boy zoal derby la Joal Xelkom ak Santhié Njool Momadou Momadou mu ngi koy accéléré fii nii diggante Papa Gueye ak Mbalka Papa Gueye ak Mbalka bu Saly Papa Gueye bu Joal jël na tànk Papa Papa Gueye yenu na ko dóor ci suuf doole doxul jàmm Papa Gueye bu Joal daan na Mbalka bu Saly Joal jël na ko Joal war na moo daan ragu ngóor nangaan wi action bi def ñoo rëcc papa ñaax mo daan rek ngor ndangaan bi rek ñu tangar bi papa ñaax daan na baabu Idrissa Ndong bege nañ ko ñom pa Faye sama to tooma Lamine ñom ñepp ñu leen di ziar combat bi nur na luy gaaw waaw waaw daan na ko ku ñëwaat ma xalaay ak momadou sek Ndaa Mal Daaru champion bu mag bi namm nañ ko si lamb ji nañ koo gis bu kar ñu ngi koy ziar maxalaay Mamadou Seck daan na maxalaay da booy palmarin bi daan na maxa waaw waaw nee palmarin bu fi laa beneen gayen baabu mooy borom vaccin bu bula bi waaw waaw Babou wër na ko ndomb arbitre Babou yëg na ko daanoogul de daaneel na ko arbitre sifflé na si ginnaaw arbitre sifflé na fële beneen combat bi diggante Papa Gueye bu Joal ak Lay bu Niodior Papa Gueye Lay Dji nii diggante Mamadou Morone ak Doudou Papa Gueye Leyti dañuy combine wala dañuy bëre Papa Gueye jël na tànk Leyti Papa Gueye daan na Leyti combat bi daa mel ni tuutu moo war Mamadou Maro ndombu tuutu war na ko ndombu mboti wala yennu luy am Mamadou ah war na ko ndombu ba tey tuutu war na Mamadou Maro ndombu tuutu war na Mamadou Maro ndombu suñu grand Boucar Ndour ndeysaan mooy wax ne lii penalty la si lamb kenn waru koo raté daan na ko wala arbitre lu mu wax arbitre nee na Mamadou Maron moo daan ki ñu waroon ndombu arbitre nee na moo daan Mamadou Seck yenu nañ ko dóor nañ ko ci suuf war nañ ko ndomb yenu waat Mamadou Seck daan nañ ko amateurs ñoom Aliou Faye ñoom Ousmane Ndour Gambien ñoom Idi Sarr ndeysaan ñoom Arfan Faye Arfan Faye ndeysaan sama grand frère sama xarit navigateur bu mag bi borom le 6 mars anniversaire ul ndeysaan ceetal le 6 mars incha allahu rabbi loolu du yomb njool njool daan naa Aliou Faye waaw waaw ay waay jëlal njool waaw waaw sama grand lang Ndombour bu Ngor Simal di bëgg sama maire yi ñoom yaa faat Diouf ñoom yaa faat seen ndeysaan te ni nga see ngor fàttewuma la kon booy day dem final tànk yi wajoju di dem day dem final si tank yi ba tay diggante Papa gay, ak babu soudian Papa gay zoal sumo ma zoal xel di dem ci waa Cité Xorom wa daru salam ndaysan di len di bëggee waa bitiku idi ziar naa leen idi boutique ndeysaan waa la ziar di la bëggee di la wax dafa tew ma boolu dof yi ndeysaan ba muy nekk Joal idi borom baax la waa gaalu Tafa Njaay sama mool yi gaalu mbay taba ñoom baabu ñoom maye koor ñoom mbay Njaay mu am na ngemb mu am na papa gay am na ngemb mais babu soudiane dafa am dole, mu war na ko ndombo Mouma warna na ko ndombo Papa gay warna na ko ndombo Papa gay warna na ko ndombo Papa gay warna babu Babou Soudiane ndombo mu koy puus si diggi gi combat organisateur de Diouf ordinateur bu Sali Boy Diouf Ndero la Ngolé. Mamadou Maron Lodiola Ndero la Ngolé. ordinator busani boy diouf mamadou maron lo jola dero la ngole Papa Gueye war na ko ndombo wa mais lan la ni waaw mais Papa Gueye daan na ko doole doxul jàmm waaw ndeysaan arbitre bi sifflé na finalu poids léger yi diggante monument bu Ndianda final bi diggante monument bu Ndianda ak Fata bu Njongolor monument nekk à domicile ndeysaan moo ñu woon gannaaw moom mooy borom vax bi monument Fata bu Njongoloor ndeysaan Njongoloor dëkk mamu mamu Njongoloor champion bu mag ba ñu koy ziar di ko bégee final poids léger fii ci Ndianda monument nekk Fata bàyyi ko ba Njongoloor ne wut si ko fii ba Njanda Fata plaqué na ko oh monument Fata ma Fata ñu nek fi di ñaan ndeysaan moy ziar di bëgg di gërëmaat sama tonto sama nijaay malik Yat sama xarit la ndeysaan chéri ndey ami ma ngoy bëgge di bëgge sama yumpañ di bëgge wa ñaan ndeysaan le top directeur Ousmane Top ndeysaan ñu ngi koy bëgg di ko siyaar di contane ci mom ñom babu Ndour Daaya mënuñ leen faté wa mais borom Jakarta lii lan la waaw mais waaw mé mé mé wa wa daan nañ ma waaw Fata bu Ndongolor jël na poids léger yi. ñu ak njool bu Joal mooy bëre final di ko jaajëfal def na parcours bu garaaw ñëw ba final mais njool final bi ngay bëre nii te yow noo ko jàngatee. final bi. waaw. ñu ñaan yàlla rek mu may man waaw. waaw si kaw booy bi. mais ki ngay bëreel xam nga ko. booy bi waaw mos nañoo bëre. ah ku ku daanoon. moo ma daanoon. la daanoon. kon tey da nga fas yéene jël sa revanche. bon loolu ngeeg ordinateur bu Saly moom moo war a bëre final bi ci poids lourd yi ordinateur ñu ngi lay waa di la félicité ci parcours bi nga def ñëw ba final mais final bi nga war a bëre nii noo ko jàngatee xam nga mbër bi wala nu mu fa demee. Ah, daan ko ah. daan naa ko benn yoon waaw. nga ko benn yoon. Ah. waaw mais tey nag mu nar a demee nan loo indaale tey. trip dip rek. looy wax waa sali waa Saly waaw. kontaan si ñoom rek. waaw bëggee paasan bu baax a baax. ok nu mu mel nii yëpp paasan la. waaw barke Serigne Bamba. yaa jëf waay. waaye man ndeysaan arbitre waa ngi waaj a siffle bu poids lourd yi fii ci Ndianda ndeysaan dimanche le 20 décembre 2020 diggante ordinateur bu Saly ak njool bu Joal ordinateur moo féete suñu ndeyjoor daan na njool benn yoon njool war a jël revanche ko Joal ndeysaan bu ñu waxee Joal sama xel day dem ci sama champion Moussa Yande Fall ma koy ziar di ko bëggee champion bu mag bi borom médaille d'or yi le champion d'Afrique Moussa Yande bëggee naa ko Aliou Sow maa ngi di ziar ndeysaan di bëggee waa Joal yëpp gay naa ko la filik sama grand mama du fay jaxa ndeysaan gendarme bi depuis jam ñaajo bëggee naa la grand sam fay ndeysaan di la wax ne sa taxawaay le Samba Faye sama grand Ibrahima Ndong ca Koba séeréer bëgg di bëgg waa séeréer falaa juddoo falaa yaroo falaa màggee mu am Koba séeréer la Koba Ngoy 1 Koba Ngoy 2 bëgg naa leen bu Joal ordinateur bu Saly njom leen di wax ne Papa daa mujjee bàyyi ordinateur ci demi-finale yi Papa Gueye dafa maye ci demi-finale moo tax gisatu leen ko. Ndiol bu Joal ordinateur bu Saly. Ndiol bu Joal ordinateur bu Saly. Ndianda Fara Ndianda woote ndeysaan tegal mbër yi nag ñoom ñaar ñuy bëre ba egg si final arbitre na ndeysaan Galop Moulay rang muy gaaw ndeysaan ci final bi njool bu sowaat ordinateur bu sali njool moo féete suñu càmmoñ ordinateur suñu ndeyjoor waaw di sant di gërëm Fara Ndiané rek ndeysaan mi nga xam ne champion bu mag boobu mbër la mais mu ngi doxal làmb ndax mu ngi organiser ay ay mbapat ndeysaan ordinateur dugg na ko njool arrière ndeysaan di bëgg waa Diofior Fala jàngeen ndeysaan diggante 2007 ak kër Baye Mosaan awa mbin Baye me ziare anun bege anun neke jega o ɗayu maak na nuun limangaan juum Massar Faye amateur fa maak fe bege anum Lamine commune o Mama Diene ndeysaan sengan ngosiid Adou Yaye Adama Giling Moussa Ñame ndeysaan sama gaay yooyu duma leen fàtte ordinateur ak njool ordinateur ordinateur wetu na njool ordinateur ak njool ordinateur ak njool njool rëcc na waaw waaw ñu ngi bëre ñu ngi bëre ndeysaan ñu ngi bëre final la Fall ak ordinateur bu Saly final la ndeysaan mënul yomb ndeysaan waa groupe ñoom 100 pour cent bëgg naa leen ñoom Pierrot Ndiaye ñoom Waly Sène Diop le maire ordinateur amaat na ngemb ko wetu droite bi mbaa du caxabal loolu fooram la mbaa ordinateur yéen ko mbaa mu tegal ko 16 bi lu fi na njool njool côté droit bi fooram la moom la daane ci demi-finale bi léegi daa caxabal waa ji njool ak ordinateur fii si Ndianda dimanche le 20 décembre 2020 waaw final la ndeysaan kenn waru koo sorxo sorxo kenn asaalo ku daan ndeysaan nak lay am ale naak fo xa canum na no raab teel waat yéen mbokku internet yi di leen di wax ne dee leen abonné ndeysaan yéen ñi seetaan dee leen abonné sama gaay yëkku leen abonné amateur fii si Ndiane ndeysaan final bi métti na Ndiol bu Joal ndeysaan waa Joal ba tey di bëgg sama gaay waa Gaalu Mbay Daba waa Gaalu Gaalu Tafa Njaay ndeysaan sama mool yi bëgg naa leen ziar naa leen waaye mais sama grand pape Ndangaan ziar naa ko mbokkum ndeyu Yaxya Diop Yékini sama papa ziar naa leen yéen ñëpp waa Idrissa Ndong bu mag bi pour ñoom Pape Faye gaa yëpp bëgg naa leen ñool bu soal ordinateur bu sali ordinateur war na ko ndomb ordinateur war na ko ndomb ordinateur war na ko ndomb ordinateur war na njool ndomb ordinateur bi sari daan na njool ah, mais suma gars yi lamb ji tas na ñu ngi organisateur bi promoteur bi mbër bi champion bi ah Fara bu Ndianda dootuñ ko présenté kenn ci Sénégal xanaa ku dul suivre lamb léegi fara ñu bàyyi la nga wax ci organisation bi nu mu demee ak ñi nga xamante ne jàpp jàpp nañ si organisation bi nga gërëm leen oui organisation bi nu mu fa demee nan ngeen organiser làmb ji ba mu réussir nii. waaw maa ngi nuyu ñëpp. Mhm. di bëgg ñëpp. waaw wax dëgg yàlla làmb ji euh, liñ ci doon ñaan yàlla. Mhm. am na mooy que ñu commencé ko jeexal ko ci jàmm. waaw waaw aussi di gërëm gars yi nga xam ne tey ñoom ñoo ma jàppale. Mhm. muy sama gars yi may àndal ñoom Karim ak ñoom Souleymane. waaw ak ñi a dëkkal samay tëggkat yi. Mhm. ak samay woykat yi. ñoom ñëpp maa leen di béyee. Mhm. ndax euh, li yombul. ndax euh, ci jamono biñ ñu nekk nii jamono confinement bi ñu nekk nii. waaw li yombul. man mii di wax na wax ak yow sax foog ma woon ne dina jeex. mais nag wax dëgg yàlla jeex na ci jaamu quoi. waaw ñuy sant yàlla bu baax a baax. làmb ji animé nañ ko nañ ko na mbër. Mhm. waaw wax dëgg yàlla kontaan naa moom. léegi parrain yi lool leen di wax ñi nga xam ne moom ñoom ñoom lañ tuddee woon làmb ji. waaw ak kan kan la. waaw parrain yi moom wax dëgg yàlla ni ngay gis ni mhm. euh, samay xarit lañ. Mhm. samay doomu ndey la waaw wax dëgg yàlla ñoom aussi def nañ liñ ñu war a def. def nañ li ñu war a def aussi ñun moom amuñ dara seen fey ko amuñu seen fay kon. ñun daal euh, ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. waaw waaye noonu la demee. ok jaayëf champion eh, rafet na